Camara euh, gis nga ginnaaw bu mu yëgitee ay kàddu fële ca Seneweb daanaka ay waxtu rek dana si teg wala benn fan euh, procureur euh, daanaka moom arrestation ñu si bëri bettu leen ndax taxawaay bi mu am depuis 2021 ba léegi amaan na moom laa di am tey jii bi nga xëyee suba dégg ni procureur kat moo ordonné arrestation procureur boobu nga xam ni moo fi nekkoon ba Ahmed Suzanne Camara def li nga xam nag moo di vidéo di wax Ousmane Sonko dañ ko war a rey faat jusqu'à présent amul benn investigation bu si def tey mu jot ay kàddu jëmale ko si njiitum réew mi ñu daal di koy teg loxo lan nan nga mën jàngatee aussi bu bële muy wax lu toj penc gisoon muy def ay giraawaal yi ay ñaari bakkan yu kii mu bañoon a autosaisir ci loolu tey moo autosaisir ci bi mu taxawee tey wax kàddu yu xotti worma euh, njiitu réew mi mais nag problème bi mooy li ma wax ci Aminata Touré sànq ak Mansour fay loolu laa ciy wax bu fekkoon ne ak Suzanne Camara li mu wax maanaam moo nekk ci dëgg président nekkul ci dëgg bu boobaa du saaga parce que dafa giiñ na président waxul dëgg ba jëfandikoo baatu fen fen nag du saaga fen wax la comme ni nit di lekkee ni nit di sàccee ni nit di naanee ni nit di ni nit di léegi nag ku toll ni kilifa man bëgguma am président buy fen te jàpp naa ne sama président du fen muy euh, président Diomaye ku jub la ku dëgg la léegi ku toll noonu tey waxi waxam xam la mu fa fekk yow xamoo ko nga ñëw taxaw ne waxul dëgg ah léegi nag buñ la woowee boo procureur autosaisir yow mën na la prouver rek ne waxul dëgg. waaw non xam nga dafa am leneen lu ñu wax incité nit ñi à ce ñu xam nga nu ñu waxee beneen chef d'inculpation ñetti chef d'accusation la benn bi ci lu jëm mooy mi ngi xiirtal nit ñi ci xanaa ñu féeteerlu du mayu loolu déjà c'est puni par la loi benn la beneen bi mooy dañu ne dafa offensé chef de l'État bu dee offense xam naa mooy lan ci ci tubaab li muy tekk ci wolof mooy daf ko saaga léegi nag man fen moom du saaga loolu moom dañ ciy d'accord muy fen diw fen nga ne ko da ngay fen duy saaga mais attention saaga non non non déedéet xam nga président bu dem bay président buy buy buy wax lu dul dëgg comme ni ñu Macky Sall doon def loolu moo dul war ma def ji moo gën a bon man ñaanu ñaanuma yàlla président Diomaye mel noonu te jàpp naa ne président Diomaye melu ko moo tax déedéet xoolal xam nga war ma moom nit ki mooy xool ban war la war a jox dit wala nànkam war ma da nga koy jox ki ko mérité man dama jàpp ne président Diomaye def ko mérité te Sousane Camara bu wéree di nit kuy xalaat dana xam ne président Diomaye mi def ko mérité mais nag damay bañ ñu jël baatu wolof bu tekkiwut lii tuddale ko lële loolu laay laay bañ mais teewut moom kon dafa sosal président ci ne ko waxoo dëgg loolu nag boo ko defee day daal di mujj taxaw taxawaayu saaga foofu laay waxee moo tax moom c'est à moom mu prouver ne président kat moo nekkul ci dëgg bu boobaa man ma taxaw ne du saa saagawu ko nañ ko baax mais bu ko mënta prouver pour wane ne maanaam li mu wax moom dëgg la li président wax moo du dëgg bu boobaa dafa saaga li may wax leer na bu baax xam nga sànq wax naa la ci Mansour fay ak Mansour fay moo porté plant mm. parce que Mimi Touré dafa ñëw ne cour de comptes épinglé na Mansour fay boo demee ca article rapport bi yaakaar naa cent un cent ba cent deux voilà foofu la ko waxee amaan na feneen cinquante ki ak xaw ma cent vingt nangam waxee na ko fa xam nga kon loolu dana fàng mooy kee léegi Mansour Faye ñëw wax ne kii dafa diffamé xam nga taxawul sax de Mimi Touré waxul dëgg day nangam mais daf ne daf ma diffamé mais loolu da nga koy daal di war ne weddi nay waxam maanaam bu boobaa bu ci Mimi Touré daanu woon mooy kon Mimi Touré moom day sos te kilifa waratul sos léegi li tax Mimi Touré wala wëlbatiku di ko laajaat ndàmpaay mooy ne Mimi xam na ne moo ne ci dëgg kon bu Mansour mënta prouver ne Mimi nekk ci toor ba nangam kon bu amee ku war a dàmp moromam sax kon Mansour la war a doon est-ce que yaa ngi dégg fi may wax léegi kon boo ko indiwaatee kon ci diggante citoyen ak citoyen dëgg la mais nga teg ko ci président boo xam ne nit ñi xam nañ ne dafa ñëw dafa jub jub jubal jubbanti la woote crédibilité le président joomaay am ba fenn fu ci nekk ci àdduna ñu wóolu ko ci leen waa léegi ñoom bu bu bu Assane Suzanne Camara mënoon na prouver ne président du waxkatu dëgg mooy bu boobaa àdduna bi dootuñ ko naw dootuñ ko joxati liggéey bii ñu koy def mu rafet lool nit ñi dootuñ ko sax bëggee ni koy bëggee léegi nag crédibilité boobu mu nar a xañ président moom bés bu ko mënta prouver loolu aw saaga la lu garaaw la moo tax buñ ci bu boobaa bu ko mënta def mooy tëj ba damm ci caabi ji voilà foofu loolu moo tax man a Cheikh baara xaw nañu wutee gisin ci mbir mi moom dafa jóg rek jàpp ne wax déedéet ni mu ko jëlee jàllee lu simple simple wu ni non non sosal président yàq crédibilité bis bu amatul crédibilité kenn dootu ko mën a topp président Diomaye leen rek la mën a am muy crédibilité parce que ak réew mi maanaam dëgëragul jotaguñ ko ba mu ne ngaañu moo tax ku xaw di fooyee crédibilité am lu mu tuuti tuuti tuuti loolu dafa war a leer man mii di taxaw naa ba tàyyi ne Macky Sall waxu dëgg man aw ma ci problème parce que boo ma koy wax xam naa ko teg naa fi ma koy teg léegi nag na def ni man te bu ma yóbboon kaso yi damay dem tëdd ko voilà loolu la quoi. ah, ah bien sûr ñu suba dañu jàpp ni ah li ma kat daan def moom la président Diomaye commencé def maanaam tey jii ah, wax ma lu la lu la lu ma lu ma naqadi mooy yóbbu la ca kaso ba nga wax ma lu ma neex ma bàyyi la nga continuer wala li nga xam ne nag mooy soxla ñenn sax dem bay jël exemple ci ki nga xam ne nag moo di Azoura est-ce que ñaari cas benn non Azoura ak eh, bon Azoura sax moo gën a garaaw bu dëgg dee dëgg moom dafa saaga te saaga ba dendale kii dafa taxaw wax kii bu mënoon a prouver ne président Diomaye moo newul ci dëgg boobaa waa ci saaga te Azoura Fall dafa saaga bu dëgg dee am parce que tamit waxtaan wax dëgg ca la mais nag li ñuy war a njëkk a xam mooy procureur mooy auto autosaisir bu fi kenn président Diomaye moo jàpp kii comme Macky Sall bokkuñu parce que nañuy boole yu bokk xam nga àddoo li ci gën a bon mooy nga boole lu bokkut boole lu bokkul mooy ñuy indi yenn problème yoo xam ne. nit ñi duñ xam fu ñu koy jëmee parce que Azura Fall mënut a tudd président dendale ko ay saaga wala mu saaga ba ñu yeggal nit ñëpp fi lañ nekk gis nañ ko gis googu ñu ko mën a gis tey léegi li nga ci mën a wax mooy du président du mooy tëje première ministre du mooy tëje Abdou Karim mu fi nekkoon di tëje ka tijji parce que mooy procureur tey moo fi nekkaat xaj na sax dafa dem ba xool xam ne jaadoo tut comme mi ngi daan gis moins que ça mu yóbbu la tëj la tey ñu gis nit wax lu garaaw mu nekk di tendeefal xaj naa bët bu rusut toj moo tax mu auto autosaisir mais bu ku ciy wax nañ waxal yàlla te yàlla tax parce que président Diomaye tey boo ko giiñee foo koy teg dañu am justice bu indépendant en tout cas li fi amagun yëpp gis nañu ne gis nañu ne ñu ngi koy teg ci yoon léegi nag bu fekkee dañoo saaga Abdou Karim Diop moom lañ teg procureur de la République ba tey moo war a mën fekk Azoura Fall fa mu nekk ba tey parce que saaga yi moom ma ngi fa xañ na boo demee gis ko boo koy teg loxo nga teg ko léegi bu ko deful président Diomaye da ngaa bëgg a gëm ne moom moo jàppalu Azoura man gëw ma ko xaw ma moo jàppalu Suzanne gëw ma ko premier ministre gëw ma ne moo ko jàppaloo parce que wanuñu wanaguñ ma loolu Macky Sall mi ma daan wan loolu ci moom laa gisee ne bu doon moom la moo ko daan def mais fi ñu toll nii damay bëgg a doxal maando parce que bu fekkee ne li nga wax sànq comparé ñaari cas yi xam nga li tax ma ne la Azura la mu def lu yoon war a teg loxo la sa wax dëgg yàlla yéene mu ko kaso mais dañuy liir dañuy wax li nga xam ne constitution moo ñu tënk soo demee ci article 36 ci constitution bi daf ne le président de la république élu entre en, en fonction après la proclamation définitive de son élection après la proclamation définitive de son élection et expiration di mandat de son prédécesseur maanaam dañu ne ba ñu jibalee ca kaw daldi wax ne maanaam kii gañe na dëppoo maanaam ayub kim fi wuutu jeex ayub kan la kim fi wuutu kañ la la deux kon diggante bi nga déggee ñu ne dégg na yu bañ proclamer ko ci conseil constitutionnel non bañ proclamer ko ci tribunal bi ak yooyu pro définitif falafaloo kon diggante boobu ku ko ci mën a saaga saaga nga chef de l'état foofu ca alinéa 1 ba la alinéa 2 ba xam nga fee président Diomaye lay xool 2 bi mu ñëw wax ak Macky fii mu ñëw ne le président de la république en exercice en exercice reste en fonction jusqu'à installation de son successeur xam nga diggante soloog simmiku yaramu neen xaj na fa ginnaaw loolu moo am moo tax gis nga ñaari ni mu waxee kon président joomaay bi ko keedee saaga wala bi ñu loolu ñu jàpp ne ay saaga la bi muy am aw saaga la moo gën a ñaaw lii it saaga la maanaam mën naa doon saaga mais fekk Azura ko tegoon ci dëgg li muy prouvé doon am du saaga. déedéet mënul doon ko boo boo koy taxé kumba am nday kumur amul lu weesu la lee booba jublooguñ ci liggéey bi maanaam tey booba talaguñ ko ñanga nga asalaay di def li ñuy def ak yu demee noonu mu rëcc ba wax lu mu war ta wax kon ginnaaw loolu kii wuñ ko woon nit nag Mansour Faye du nee na la ku nekk ñaata nit a ko taxaw wax ko nangam mais ka ko metti la tudd mais loolu mënoo ko tuddee ba am ndey ak kumba amul ndey léegi bu fekkee ne procureur moom dafa jàpp ne fii la auto autosaisir te bi mu auto autosaisir ba nëgë ni ku fi def lu dul yoon jàpp nañ la ak ci wet goo mën a boole en tout cas Azura bi mu koy wax toog nañu ay weer ñu doog a tàmbalee jàpp ku mel ni Bah Diakhaté wala jàpp keneen jàpp keneen bi ñu ko commencé di def ba nëgë di gisuñu mu teggi kon ñooñu mënu leen a wax deux poids deux wala comme li ngeen koy waxee. Hmm. en tout cas na nit ñi jàpp ne. wax dëgg yàlla am justice la am te kuñ ci amal affaire man li may wax ci baa jaxate ci autorité yi mooy nañ ko defee woon comme lu franc grand la wax nañ ko doon defee ci lu franc grand nañ ko defee noonu léegi nag beneen affaire am na na moytu asura ok nu mu tuddati astafurlaa ma naan asura amat parce que daa am yeneen dossier dafa fekkoon ñaar ñu réer mër daanaka mu tuumaal leen tuumaal ci ay nit auto procureur waroon auto saisir auto saisir njabootam tey bis bu tàmbalee nekk ci kaso bi bañ àtte ko franc grand tey tëj ko benn weer wala lenn li mu def wala ñetti weer wala ñeent suñ ko fa fekkaat ak dossier bële bu tëddee ñaari at bu mu ko naqari waxin la waaw boo yoru dangay yaru ci gis ni kat euh, Ahmed daanaka bën ko euh, tegee loxo ba léegi nu gis ni ñu ko waroon taxawu gisuñu leen nu raar ci terrain bi muy waa APR ñooñu nga xam ni fa la bokkoon di politique ak ñoom gisaguñu communiqué bu wàcc pour soutenir ki nga xam nag moo di euh, Ahmed Suzanne wàcc si terrain bi aussi gisaguñ ko lan moo waral est-ce que nekkul li nga xam ne nag moo di añu lañu di sacrifice est-ce que sacrifié wuñu ki nga xam moo di Ahmed Suzanne Camara bàyyi ko mu wéet lool ci li nga xam nag moo di moo sacrifié moom moo sacrifié boppam xam nga tey bu président Diomaye ñëwee wax li mu wax te moo xam la ca kees ga Macky Sall moom bu sañoon duñ tudd li ci kees gi lenn ko mënoon a sauver tey muy Macky Sall jox ko éléments yi mu mën koo prouver bu fekkoon ne Macky Sall bàyyi na fi dara te loolu gëwuma ko kon moom moo sacrifié boppam voilà léegi nag nit ñi moom dañuy comprendre nit ki bu lay jàppale tamit da ngay jàppale sa bopp ba pare ñu doog lay dimbale. exactement alors ba tey dañuy des ci euh, point boobu ak li nga xam ne nag moom moo di wàllub yoon euh, tey ci ay xibaar danoo forni euh, ci weewu béy que sa diggante ak benn takkader xawoon na ñagas tuuti ci li nga xam ne nag moo mbirum